أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا همة شيخي احضري لنا بهذا المحضر وتأتي في بنظرة تأتي لنا بزفر ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jamit Nasruddin ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di am mbégte di daje ak yéen tey ci ajuma ji ngir fas yéene tëral dars bi ñu ngi yemoon ci jaamul jawaami ad dawaawin juróom-ñaare juróom-ñaareelu at gàddaay ga keroog ba nga xamante ne ci la yonent bi doon di jël xaybar di ko toj nga xam ne ne benn fatxu la ci fuutu xaatu nabi sallallahu alayhi wa sallam nga am bàyyi sax bunt bi daf ko tuddee ne baabu fatxu nabi ndax yonent bi daf cee amee ubbeeku ak jullit ñi ak lislaam xaybar moom mooy ibbi fuutu xaat yi moom mooy tàmbale fatxu màkka daanaka xaybar bañ ko amee rek ci lañ amee fatxu màkka ci la màkk daal di ubbeeku waaye ci biir loolu at boobu bañ ko weesee tuuti ñuy dem yonent saa sam dafa ànd mu doon mu dafa àndaaleeg muy bind ay lettres. bu mu paree xaybar ndax bëtam mu ngi tegee ci nguur yi nga xamante ne ñoo waroon arabi bi yëpp nguur yi waroon màkk ndax gis ne ne tamit su jëlee nangoo arab yi seen doole sam fa lislaam tamit te ñi ko wër nekk ay danger ëllëg ñu mën koo song il faut mu dem toj ko dugal fa lislaam loolu moo doon xëdëfu mu bind lettre pour ku ci nekk ci ñoom mu woo la bind nag nag lettre ki ñu wax Muqawqis nga am mooy azimu misra misra foofu dafa am li ñuy wax xibtiyuuna yi xibtiyuuna yi ñoom ñooy les coptes d'Égypte al xibtiyu mooy copte ñoom ñoo fa nekkoon moom moo doon seen buur bind na it ginnaaw loolu risalatun ila Xirakla azimu ruum buuru Rome xirak la moom la tubaab di wax Héraclius bind na it ginnaaw loolu lettre di woo ci woote it ci lislaam ku ñuy wax Kisra Kisra nag moom mooy comme ñu ne damel du Kayoor wala buur ba Jolof waaye noonu lañ koy woowee mooy Kisra buuru foofu waaye nag moom mu ngi tuddoon Xaysar lettre yooyu noonu incha allah lañ fas yéene jàng tey bu ci njëkk mooy bi mu bind mu xaw xis dinañ jàng nag yeneen lettre am na ñeneen ñu mu bind yëpp incha allah dinañ ko fi indi bu ko defee mu ngi wax ci lettre bi mu bind mu xaw xis ne aouzu billahi min shaytan rajim mu ne bismillahi arrahmani rahim min muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne min muhammadin rasulil islam mu ne lettre bi mu ngi bàyyeekoo ci Muhammad mi nga xamante ne mooy ndawal lislaam yonente bi lislaam ilaa Muqawqis azimul xibti moom mooy buur xibti yi mooy copte yi mu ne salaamun ala man taba ala man ittaba allahu huda amma baad fa inni ad'uuka bi daawati l islaami aslim taslam yuutika allahu ajaraka marratayni qul yaa ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum allaa na'budu allaa na'buda illa allaha wala nushrika bihi shay'an wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaaban min duuni illahi fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna bi annana muslimuuna mu ne salaamun ala manit taba alhuda yàlla na jàmm ak yiw nekk ci ki nga xamante ne ak képp koo xamante ne rek topp na njub yoonu njub amma baad ginnaaw loolu nag fa inni naka man yonent bi salaa sallam addu uka maa ngi lay woo yow kis yow mu xaw xis bi daawatil islam ci woote lislaam bii nga xamante ne yàllaa ma sant moo def ko te daawa bi du dara lu mooy aslim na nga jébbalu taslam di nga texe di nga mucc yuuti ka bu ko defee yàlla dina la jox allahu moom yàlla ajaraka sa payoor maratay ni ñaari yoon yàlla dina la fay ñaari yoon suñu waxee dina la fay ñaari yoon nag liñ ci jublu mooy dina ko fay ngir moom dugg bi mu dugg lislaam waaye ngir it ña ma jiite ñëpp mbooloo moomu nekk ci ginnaawam yëpp euh, topp ko dina ci am payooru topp biñ ko topp wa man daa ila huda kaana lahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu loolu xadis yonent bi la képp ku wootee ci njub di nga am tëb- euh, euh, payooru képp ku la ci topp laa yanqus zalik shay'an min ujurihim noonu la ko àll noonu la ko xadis bi waxee mu ne sax tey du wàññi benn yoon ci pa payooru ci sa payoor dara bi maanaam ku ci nekk lan lay fay duwul ne dañuy jël ñooñ lañ lay eh, du- duwul ne day wàññi ci sa payoor ñu ñu jël loolu di leen ko séddale déedéet ku ci nekk da ngay am sa payoor ak payooru kooku ak payooru keneen ak payooru keneen su doon milliard sax da ngay doon da ngay am sa payoor ak seen milliard ñoom ak ñooñu tamit képp ku ñu woo ñi nga am jàng nañ lu ñuy wax marketing de niche ñoom xam nañ loolu nu muy tëddee ci wàllu zaahir marketing de niche moo la koy mën a won comme ñuy jaay produit yooyu ñuy wax ay forever ak yeneen ak yeneen nga am soo indee client client boobu su jaayee moom it ku mu jaay da nga am ci bénéfice loolu misaal la moo tax mu ne ko kon di nga am payoor ñaari yoon mooy fii ci àddina ak ci àllaaxira waaye di nga am payoor ñaari yoon mooy di nga am pay sa payoor ak sa payoor mbooloo mi la topp ci la daal di indi nag aaya alxuraan bi la argumenté lettre bi mu ne ko qul yaa ahlal kitaab ay waxal yéen waa ahlul kitaab yéen ñi am téere mooy juif yi ak képp ko amoon téere taalaw ila kalimatin parce que ñoom ci axlul kitaab la bokk mu xaw xis ñoom jàngoon nañ ci téere yu njëkkee ne yonenti war na ñëw kon nag moo tax mu indi aaya boobu mu ne qul yaa ahlal kitaabi taalaw ey yéen waa ahlul kitaab taalaw ñëw leen dikk leen ila kalimatin ci ñu daje ci benn baat sawa in baynana wa baynakum boo xam aji yemoo la ci ñun ak ci yéen allah naabud naabuda mooy ne euh, illallah du ñu jaamu lu may yàlla moom wala nushrika bihi te it ah duñ la bokkaale yow yàlla shay'an bihi shay'an ak dara wala euh, yattaxida baaduna te du ñu jàpp mukk du wala boog du jàpp mukk baaduna ñenn si ñun baadan ñeneen arbaaban ñu doon ay yàlla wala boog ay divinité min duni laay walis yàlla ci kudul yàlla fa in tawallaw bu dee nag da ngeen dummóoyu da ngeen dëddu ngeen bañ a nangu wax ji fa xuulu shahadu na ngeen wax ne ah ñun de seede nañu bi an nana naka ñun ñu ngi seede wala boog seede leen ashhadu seede leen bi an nana naka ñun muslimuna ñun ay euh, ay julit lañ waaw ñun daal seede leen ne ñun ay jullit lañ loolu mooy contenu lettre bi wa taqulu riwayatu inna al muqawqi riwayatu riwayatu inna al muqawqisa lamma qara al kitaba sa'ala xaamilahu xaatib ibnu abi bal taata mu ne mu daal di wax ne naka mu xawqis ki indi riwaaya bi ki nettali lettre bi indi ko mu ne keroog ba nga xamante ne mu xawqis buur boobu waxtu bi nga xamante ne liir na lettre bi dafa daal di laaj xaamilahu ki nga xamante ne moom porté woon lettre moo ko indi ah mooy ndaw li te mu tudd xaatib bun abi baltaata kooku moom la yónni saa salaam saxaaba boobu la yónni woon daf ko daal di laaj lii laaj bi lan la mu ne ko maa manaa saahibaka in kaana nabiyan an yad'uwa ala man axrajuhu min baladihi fa yusallitu llaahu alayhim suu'a mu ne maa manaa saahibaka ana lan moo tere yow sa waa ji sa àndandoo bi mooy yonent bi la ko bëgg a wax in kaana nabiyan ndem moom yonent la an yad'uwa ala man axrajuhu mu daal di ñaan kon ci ñi nga xamante ne mu ñaan yàlla ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko génnee min baladihi ci dëkkam fa yusallitullaahu alayhim ah bu ko defee topp yàlla dina xiir ci ñoom mbugalam ah alayhim asuu dina nekk ci ñoom tamit mbugalam lu bon ah lan moo tax ñaanalu leen toroxtaange bu fekkente ne moom yonent bi yàlla kay kon kay ñi ko génnee màkka ba muy dem madina kon kay ñooñu la waroon eh, ñaan munoon na mucc ci ñoom lu tax ñaanul mucc ci ñooñu ah fa xaala xaatib xaa- xaatib daal di tontu eh, Muqawqis ne ko wa maama mana a isa an yaddu uwa ala ulaika allazina eh, taamaru alayhi li yaqtuluuhu fa yusallitullahu alayhim maa yastaxiquuna mu daal di ko wax yéen yow it damay laaj yow mi nga am Isa ibn Isa alayhi salaam Jésus nga gëm Jésus moom ah ana lan moo li ko tere woon moom it ñaan ci ñooñu noonu nga xamante ne allazina taamaru ñoo tëraloon tëraloon nañu ay plan alayhi jëmale ko ci moom Jé- Isa li yaqtuluuhu ngir rey ko lan moo tax tamit moom Jésus ñaanul woon yàlla fa yusallitullah alayhim ma yastaxiquuna yàlla mu mu daal di leen ñaanal mbugal ah ci lu ñu yeyoo ñoom ndax loolu lan yeyoon xaalal Muqawqis Muqawqis nag daal di tontu xaatib ne ko anta xakiimun mu ne ko yow yow daal ku xereñ nga yow daal ku ji- ku ma jaaxal nga ku mat ndaw nga ji tamin indi xakiimin waaw yow yaa ngi dikkee ci koo xamante ni daal moo la yónni kooku daal borom borom borom sagesse la ku xereñ la yow daal dikki nga indi eh, lettre nekk ndaw boo xam ne daal ku ñu formé la te it ka la yónni ku xarañ nga xarañ nga waaye ka la yónni ku xarañ nga wa ka wa kaana jawaabul muqawqisi nekkoon na nag eh, eh, tontu muqawqis ci yonent bi salaa sallam mooy lii ma bëgg a jàng nii mu ne li muhammadin ibn abdillahi mu ne maa ngi jëmale sama lettre bii ci muhammad ibn abdillahi m- min muqawqis gis nga nangu minal muqawqis gis nga nanguwul ne sax Mu- muhammad rasulullahi tuddeewu ko muhammad yonent bi yàlla waaye dafa ne muhammad ndawab yàlla dégg nga mu ne salaamun ala ah, salaamun daf ko ñëw rek ne ko salaamun jàmm waaw na- eh, eh, na nekk ci yow amma baax du ginnaaw loolu faqad qara'tu kitaabaka fa eh, wa fahimtu ma zakarta wa ma tadd uwa ilayhi mu ne ah, eh, dëgg-dëgg liir naa kitaabaka sa mbind bi sa lettre bi wa fahimtu ma zakarta te it comprendre naa eh, eh, li nga xamante ne wax nga ko ci biir lettre boobu wa ma tadd u ilayhi ak li nga xamante ne yaa ngi may woo ci loolu mooy seen mooy seen diine si wa qad alimtu an nabiyan ah, qad ah, baqiya wa qad alimtu an na nabiyan qad baqiya man xam naa ne nag bokk na ci li ma xam mooy que ne am na yonent boo xamante ne moo moo moo moo moo war a ñëw am na yonent bu des boo am ñëwagul man loolu xam naa ko waxat kuntu azunnu annahu yaxruju bi shaami waaye nag damaa foogoon ne yonent boobu suy ñëw daanaka day génnee shaam yaa ngi dégg Cham nag dafa yaatu dinañ ci ñëwaat moo wax leen Cham territoire am fan la tàmbalee ak fan la yam ci géographie géographie waxad akramtu euh, rusulaka wa ba astu ilayka jaari euh, jaariyatayni mu ne nag euh, teral naa nag sa ndaw mi nga yónni xaatib man de teral naa ko wa ba astu ilayka waaye yabal naa ko ci yow mu- euh, yebal naa ci yow jaariya tey ni ñaari jéebéer mooy ñaari jaam yu jigéen yoo xamante ne maa la ko jox addiya lahuma makaanun fii qibti azimun mu ne nag ñooñu noonu ma la jox nag ah ay jigéen yoo xam ne yu am valeur lañ ci ñun fii ci qibti yi ci copte yi waaw comme nga rek nga jël nit ne ko ah kii de moom euh, gor la yax bu rëy la bokk ci ñun fii ah du fi jaam waaye gor la yax bu rëy ah wala ngay may fas nga ne ah kii fas pur sang la wala ngay may oto nga ne yii oto bi marque bu cher la genre yooyu la loolu la ko bëgg a wax mu ne ko waaye nag nga xam ne ne ñaari jéebéer yi ma la may ah ñooñu am nañ place bu mag si suñu dëkk ñun fii ah mu ne wa bi kiswatin euh, bokk ànd na tamit ak mbàjj bu ma lay may wa axdaytu ilayka te it may naa la euh, baxlatan li tarkabaha may naa la tamit euh, wajanu mbaam bu jigéen boo xamante ne it di nga ci mën a yéeg waqad aw chaqal muqawqisa xaakimu misra min qabli ruumi an yusallima walakinahu lam yafal xachiyatan an yaslubahu arruuma mulka misra mu ne waxat aw saqa xaw tuut sax al muqawqisa xakimul misri ci wàllu romain yi moom nga xamante ne moom mooy buuru romain yi min qabl ci lu jiitu ruum an yuslima mu mu daal di jébbalu mu daal di dugg ci lislaam xaw tuuti daal xol bi nooyoon na ba mu bëggoon jébbalu ci lislaam moom mu xaw xis waaw waaye nag min min min xibali ruumi la wax fii mu ne xakimu misra moom moom mooy mu xaw xis mooy xakimu misra mooy biiru misra min xibali ruumi ci wàllu romain yi yaa ngi dégg foofu an yu sallima walakin xaw tuuti mu mu mu mu jébbalu walakin nawu waaye nag moom lam yaf al deful loolu mbujul tuub xasiyatan ngir ragal an yaslubahu si mu rëkki ko ar ruuma buuru ruum mooy mulka misra mooy euh, nguuru misra kon euh, suñu waxee min xibali ruumi mooy euh, mu xaw xis il était euh, sous l'empire romain bi maanaa buuru ruum moo doon njiitam kon daanaka moom euh, territoire la boo xamante ne ruum moo ko moomoon moo ko occupé woon donc su ko fa bëggee jëlee da ko fay jëlee te su yëgoon ne tuub na mu f- mu biir rek kon boobaa da ko fay jëlee mu ragal nag ñàkk nguuram googu moo tax euh, mu mu ragal loolu loolu la wax fii mu ne waqtafa bi an bi an arsala euh, hadiyatun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam waqtafa dafa daal di doylu bi an arsala ci yónni euh, ci daal di envoyé hadiyatun ay cadeau mooy addiya ila nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy addiya yi ma waxoon ni mbàjji beeg wajanu mbaam beeg ñaari jéebéer yooyu ah ila nabi sallallahu alayhi wa sallam waxiya jaariya tey nii mooy ñaari euh, jaariya yooyu moo wax ni sànq baxlatan ak benn fas benn wajan mbaam ay baydaa bu weex wa ximaaran ak benn mbaam wa xadd xabilaha yonent bi salaa sallam nag ba mu jotee loolu daal dina ko nangu wal jaariyataani ak ñaari jéebéer yooyu nangu na leen huma ma maariyatun allati istafaha annabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne huma ñoom ñaar nag mooy maariyatul xibtiya bi ngay dégg moo nga xamante ne moom moo jur euh, doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy wax Ibrahima moo tax mu ne allati Maria bi nga xamante ni istafaaha tànn na ko annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nafsi ngir boppam euh, fa waladat lahu Ibrahim mu daal di ko jural Ibrahim mu ne wa shayrina allati wa shayrina shay shayrin shayrin tamit keneen la mu beneen jéebar bi shayrin la tuddoon kii la yonent bi mujj def soxnaam mu juróog Ibrahima waaye beneen bu jigéen bi beneen jaam bu jigéen muy tuddoon Cheyrin allati uxdiyat ila xasa xasaana ibnu saabit bi nga xamante ne yonent saasam ba mu ko jotee daf ko daal di daal di may xasaan bun saabit mooy xasan saabit xasan saabit ñëpp xam nañ ko ci mënoon wax wax juréy ak tagg yonent salaa sallam wa atlaqa alal baal alal baalata ismu dulaala wala ximaara yafuur mu ne wa atlaqa tuddee na wala jooyal na alal baalata ci wajan mbaam boobu ismu dulaala mooy dulaala wala ximaar mbaam bi nag mu ngi ko tuddee yafuur yafuur kon lii la riwaaya bi indi ki nga xamante moom moo indi lettre bi ñu ngi yem fii ci lettre bu njëkk bi ñu fas yéene ñëw incha allah dugg ci ñaareelu lettre bi